toog nga ne leen quatre jours le deux ngeen jóge fi damaa soxla fii lan nga fi soxla euh, tali. li ñu bind ci kaayit bi euh, moo di gaaw a ñaari fan euh, ci weeru mars lu mu sori sori war naa fekk ñu daal di jóge ci yile barab. wante ñi nga xamante ne ñoo fa nekk nag bañ ba tëdd ci suuf si la ñu def ndaxte jàpp nañ ñi boobu kaayit du bu baax. ñun la gis mooy que daanaka xarañ jamono tool na foo xam ne foo dem mën nga faa am yenn documents yi. nga utiliser ko nam la neexee que lii mu ñu jox ñul gis nañ ni référence nekku fa kon kooku ñun mënuñoo gëm ni lu baax la. 2015 euh, ba léegi ñu daal di nekk ci barab yi gannaaw ba leen jëlee Sandaga daal di leen fay andi ñoom nag bu ñu sukkandikoo ci ñoom dinañ def seen kéem kattan ba ñu bañ leen fa jëlee ki ñu ciy joxoñ baaraama nag moo di Bamba fàll euh, jàpp nañ ni nag dafa bëgg yaatal tali bi naam nag du moo ko war a def. préfet bi fi nekkoon. moom moo ànd xalifa Khalifa Sall ci lii ba nga xamante ne yàlla dogal na ñu toog fi toogaay bu mucc ay du benn yoon du ñaari yoon ñëw nañu fii di taxaw di rëdd place ñoom ci seen bopp place ñu rëdd ba joxe ville de Dakar rëdd na ko ba joxe ko ñu ñëw tegaat seen i di rëddaat place yi pour joxewaat ko ñeneen. ñi muy liggéey ñi muy yëkkati ñëpp ci biir bâtiment Sandaga lañ nekkoon ndax ñun ñëpp xajuñu ci biir mbaar mi ñu génne leen ci biti teg leen ci biti ñooñu da leen di génne sànni leen bu ñun ñëpp lay génne sànni te bu boobaa demee neneen arrêté nag ñuy ñaan rek président de la république mu daal ci àddu ngir jox leen dëgg. su rombee tey moom su fi laalee un mètre carré. ce qui est sûr mooy dañ koy yóbbu justice loolu moom lu ko leer la. ngir indi ci ay leeral woo nañ téléphone Bamba Fall wante nag jotuñu ko.